yéen a ngi teewlu info 221 àddu wax nag ci mbirum conférence de presse bi nga xamante ni avocat wu état ngi ko doon amal seen i ndorteel nag ak kàddu yi nga xamante ni kii di euh, kii di Juan Branco bind na ko rek jaarale ko ci page Twitter am moom Juan Branco ma ngay xam ne rek ne avocat bu état bu Sénégal jot nañu nag xamle ne dinañu amal ab conférence de presse te lañ cay waxtaane bokk na ci man mi waaye itam mbiru Ousmane Sonko mi di sama client niki suba ci Ndakaaru nee na trop loolee bari ci seen égard mu ngi te nag ñoom ñu ñu xam lu ñuy wax ndaxte jamono ji lu toll ci 1600 ak jàpp 1800 euh, prisonniers politiques ñoom ñëpp ñu ngi ci biir kaso bi ñu jàpp leen ci anam bu tegginu wut daanaka fanweer euh, ci biir fanweer ak juróom-ñaari prison yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci réew mi situation la boo xamante ni faw ñu àdd ci mbirum wérgu yaramu Ousmane Sonko loolee nag nga xamante ne moom mooy principal opposant bu Sénégal waaye tamit nekk détenu boo xamante ne nguur gi xañ na ko euh, lépp lu jëm ci àq gélé fam waaye tamit mu tàmbali lu jëm ci grève de la faim yoo xamante ni ñaar fukki fan ak juróom mi ngi koy xiifal ginnaaw ba nga xamante ne jot nañ ko hospitalisé foofee de euh, na ko loolee mu nekk euh, parti euh, bi nga xamante ne opposant Ousmane Sonko waaye tamit dinañ yi nga xamante ne dañ koy tere ak 70 manifestants yi nga xamante ne dañ bi leen a rey te bal reye lañ leen reye ci jamono manifestation mois de mars 2021 ay ndaw yoo xamante ne jot nañu am ay gaañu gaañu ay junne si nit ñoo xam ne tamit jamono ji ñu ngi sooxee ba tey fitna loole nag buñ koy xaymaal mu nekk ñetti juróom benn téeméer junne prisonniers yoo xamante ne nag ñu ngi leen a dajale ci prison yi nekk ci Dakar moo xam rëbës yenn yi sax dañuy sukk seeni pen nag xamul ñaata toog nañ ci chambre yoo xamante ne bu ko seetloo ñaar téeméeru néeg la euh, loo xamante ne nag pouvoir bi defu si lenn loo xamante ne mën ngañ ko àddu seen yaram ñi ñu dóor leen ñi ñu torture leen loole nag di baara sàngare daal dina yëkkati ay kàddu rek di xamle loolee mi ngi ko conférence de presse bi nga xamante ne nag euh, avocat yi féete ci nguur gi fas yéene nañ ko amal ni ki suba nag fii ci euh, Ndakaaxu lañ cay waxtaanee principal ba mooy mbiru Juan Branco waaye itam lii di mbiru Ousmane Sonko tax na kenn ku ne ci yàppe ginnaaw nag Juan Branco ba mu ko déggee euh, jund na bind ab bataaxal nag fësal ko ci page Twitter am addu ci waaye tamit keneen koo xamante ne rek ku mel ni Bara Sangaré moom it jot na ci addu mu nekk mbir bu jig boo xamante ne suba lu ne dinañ ko déggaat nag ci bile conférence de presse ndaxte lépp loo xamante ne avocat yëkkati nañ ko wax ko rek ñi féete ci opposition bi ku mel ni Juan Branco dina indil réplique tontu leen te la nga xamante ne rek la ñu daal di addu